gi bokk nag li ëpp doole ci li leen fi indi mooy ndaw ñi parce que ndaw ñi bu ñu demoon ba ci réew am benn désespoir amatuñu yaakaar ci réew mi gisatuñu seen bopp ci réew mi boo xëyee da ngay bind CV fu ne nga déposé euh, wàllum xëy nekk jafe-jafe kon tey loolu mënul nekk solution benn fan dafay nekk loo xamante ni dañuy teg ay plan ak ay programme ak ay projet yoo xam ni dañuy dooleel ndaw ñi xam nga dama yàgg di wax ci question bi ma ne sunu maam xaar may ma jaaga la mu doon wax xale yi ku leen juróon yërëm leen ndax balaa nga naan naam day fekk ni yaa nga fa donc Sénégal de 1960 ba nii amuñu politique publique boo xam ni jëm na exclusivement ci wàllu ndaw ñi ngir ñu mën leen dooleel teg nañ ay structure yu bëri yoo xam ne pour financement la pour accompagnement mais ci wàllu formation donc li nga xam ni moo ci mën a dimbali mooy lii président bi waxoon ni daf ko def mu doon bëbëtam muy d' abord yenn secteur yoo xam ni mooy pourvoyeur d' emploi c' est ñu am secteur agricole boo xam ni mbay mi dina gën a naat mais ñu am industrialisation ba nga xamante ni dinañ mën a def de la transformation encore que man dama gëm ni l' avenir du monde c' est Afrique parce que ñun ñoo am géej ñoo am suuf ñoo am toutes les ressources tout à fait am les ressources humaines donc suñu gëmee ni ñun war nañu mën a toog construire suñu réew parce que nit kitam tam mënoo xëy rek lépp sotteendoo mënoo xëy tey tey tey tey tey mu sotteendoo tey tey tey tey donc il faudra que nag ñun aussi problème de société la et la société aussi daf ci am rôle ak responsabilité aller vers plus de sensibilisation montrer jeunes yi que c'est possible de rester ici d'avoir des opportunités c'est possible de rester chez nous sans pour nga jël euh, yenn risques yi nga xam ni moom ngay am maintenant dans le cadre de de de la coopération euh, Espagne c'est très touché par euh, par par par phénomène boobu on a vu nguur Ablaye Wade à un moment donné am na accord yu mu defoon yi nga xamante mm. euh, defoon nañ fi sax genre ay ouvriers agricole mm. on a parlé d'immigration choisie où on allait choisir l'élite et, et nos meilleurs mm. donc tey daal nañu gën a jublu góorlu ci lu ñuy téye suñu ndaw et li tax ñuy téye suñu ndaw mooy ñu jublu ci fexe ba ndaw ñi ñu dooleel leen. fexe ba ndaw ñi ñu dundalaat yaakaar googu ba nga xamante ne nit ki. jàpp na ni fii lay juddoo. fii la war a amee léppam te fii la koy fekk. d' accord Pape Moussa phénomène mi war na doon. Aliou moom euh, damaa ko dugal ci gaal gi ci suñu njiit nga xam ne ñoo fi nekk. oui euh, Pape Moussa Aliou mi dinaa ko dugal ci gaal gi yoo xaar rek kii. si gaal gi sax <laughs> bàyyi ko rek. est que est ce bi muy ñëw jaar na ci yoon. waaw waaw loo yow bu ngeen mooy loolu mbëkk mi la demee. da ngaa mbëkkoon daa mbëkkoon. non man kii ah, xam nga daa am ñoo xam ne yu mbëkk ndànk mais dafa ñëw mbëkk mbëkk yu kii yooyu après xam nga mais man da damay ñaan wax dëgg yàlla ya na bis rek premier ministre Ousmane Sonko dalal Aliou Sow ñu toog waxtaan deux heures trois heures de temps bu boobaa ñun ñëpp dinañ noppal parce que man damay naan kii daa xamul waa ji daal mm. mais bu ko xamulee dina am yu bëri yoo xamante ne euh, dina dina bàyyi mais bon bref pour revenir euh, au sujet. xam nga xam nga euh, le président de la République euh, recevoir le premier ministre euh, espagnol. Euh, ak fii fii fii Sénégal jaar ak immigration clandestine bi effectivement destination destination Espagne bi tamit bëri ci loolu Union européenne am ay taxawaay yu ñu amoon je pense euh, le leader de Sénégal sans frontières Euh, Boubacar Seye mhm. il a toujours dénoncé euh, mascarade bi nga xamante ne mi ngi ci am Union européenne ak euh, yi mu doon jéem a def en appui aux pays d'Afrique ci pays Afrique subsaharienne yi mais dirigeants yi di ko doon détourner carrément il faut dire les choses telles qu'elles sont te delluwul fa mu war a dellu et malheureusement malheureusement encore que li fi ñu toll ñun ci niveau de richesse mhm. Union européenne di ñu jàppale pour ñu toog mhm. loolu loolu loolu loolu gàcce gënu koo rëy ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite de 1960 à nos jours parce que tey jii nii euh, même euh, ces immigrants euh, d'Afrique subsaharienne mm. yiy jël euh, ay voies clandestines bu ñuy demee ci euh, usines yi ñuy nekk matière première bi fii la ñuy jug fii lay jóge maman dëkk yoo xamante ne le soleil nous inonde mm. euh, les terres sont arabes mm. la jeunesse valide vraiment ressources humaines de qualité. pratiquement on a tout pour mën a am développement durable. Mmh. niveau de pauvreté extrême pauvreté bi nga xamante ne ñi ngi koy dund boo demee dans les coins les plus reculés du Sénégal da ngay jommi waxatuma laa nga duggaat ci biir euh, Afrique tey jii nii euh, Afrique subsaharienne kenn mënul xam ñaata candidat euh, à l'immigration clandestine lañuy am par année. Mhm. di dem di tabaxiwaat yeneen réew. te seen réew amoon lépp ñu ñu ñu ñu toog vraiment parce que ñàkk dirigeant yi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñoo war a mën a euh, développer seen réew euh, étudier éducation bi dox santé bi dox yeneen ak yeneen dox donc tey jii ni euh, président Diomaye comme d'autres présidents parce que man jàpp naa ne euh, en Afrique euh, de l'Ouest en Afrique subsaharienne mu ngi commencé am benn euh, vent de prise de conscience boo xamante ne jàpp naa ne population yi bu ñu accompagner ces dynamiques mm-hmm. te bañ di suivre ces ces ces ces outils de propagande de manipulation yi nga xamante ne ay chaînes occidentales ñoo ñu ko fi tegal parfois bu ñu gisee ne dirigeant bi mi ngi ci yoon ñu fexe naka la ñuy def ba faagaagal la pour que ñu delluwaat ci éternel recommencement boobu noonu loolu la Afrique doyal donc kon tey jii nii euh, juddoo fenn màggee fenn di gis euh, potentialité yi nga am yëpp sa pauvreté sa situation économique di gën a di gën a di gën a catastrophique mais mënatu on ne peut plus supporter ça. donc euh, finalement changement de paradigme boobu noonu par rapport à nos dirigeants. ci euh, li ñu fi doon wax léegi. Euh, yaxanal euh, l'argent du contribuable. te les pays européens euh, les pays occidentaux lu nekk mën nga leen koo wax. Mhm. mais ku feebar da ngay faju ji. dañuy teg système de santé bu am solo. tout à fait. dañuy am duñ am problème mu électricité duñ am ay problème services sociaux de base yii nii déedéet dañuy jox cër doomi aadama loolu nag pour ñu mënal ko seen askan xëy na ils peuvent utiliser des moyens peu orthodoxes su Amérique su ko jaralee pour euh, mu am euh, autonomie énergétique su ko jaralee mu attaqué ji Irak da def donc moyens yi ñu koy defee ñoom xam ne mais nag tey jii nii calpe moom lu mu jaral borom calpe bi. wax dëgg yàlla bu ci amee fu la ma fayram addu kalpe mënulu ko dara donc ñun ñoo war a déjà ak suñuy dirigeant mettre euh, teg ay politique de développement yu sérieux am une orientation économique bu leer teg lépp ci transparence teg lépp ci bonne gouvernance pour que li nga xamante ne ñëpp bokk nañ ko ñëpp jot ci ci anam biñ ci war a jotee bu boobaa jarul wax kenn da ngay am le développement bi nga xam ne moom nga soxla te phénomène immigration dootul am sa sa waay euh, ak lu mu métti métti lu Aliou nekk nekk nekk français bu toogoon Sénégal ak yi njabootam ak kii moo koy gënal xëy na bon il une femme euh, là donc boom ka am c'est un peu mais képp ku jug dem wax dëgg yàlla nga toogoon sa réew am fa li nga xamante ne tey jii nii moom nga soxla lépp moo la gënal fuuf sori sa réew kenn bëggu ko surtout jamono jële ñële nga xamante ne euh, Sénégal mu ngi woon ci guddi gu bët setul woon mais ñi nekkoon seen à ñoo gënoon a sonn ñëpp parce que sori sa réew di gis euh, muy daj yenn yi yow nga nekk ci réew yu développé te xam ne ñooñu yegg ci développement boobu noonu ëpple wuñ la dara. ëppale wuñ dara fa nga jógee. alors donc phénomène yooyu noonu jàpp naa ne euh, dañ ko war a éradiquer le plus rapidement possible. d'accord. mi ngi commencé di jël du euh, temps te nag wax dëgg yàlla man am naa ci yaakaar am naa ci xel bu dal. am naa yaqin gëm ni lii ñu engagé sumb ko au Sénégal ak un peu partout en Afrique pour man dina porter ses fruits nanu ko gëm takku nanu ko gëm bañ a ci boole lenn loo xamante ne c'est incompatible avec le développement on va y arriver on a les potentialités am nañ fulla gi am nañ fayda gi li ñu pénurie bi ñu amoon rek moom mooy ay dirigeants yu vertueux loolu rek lañ amoon ci pénurie te jàpp naa ne jeex na ci Sénégal Alioune pour terminer c'est une politique